waaye nag dafa am ay firnde li ñu tuddee ay alaamaat yuy wone ne soreetul bokk na ci yooyu sax yónni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak dikkam rek day jege ne day wone ne yowmal qiyaam soreetul boo ko comparé ak la woon la ko jiitu ak li ko mujj day mel ne ci cet la lañ ko yónni moo tax borom bi tabaraka wa taala ci alquran mu ngi wax ni ne iqtarabat alsaatu wanshaqa alqamar maanaam assaa mu yowm alqiyam nee na jege na ndax xar nañ weer wa loolu mooy biñ xaree weer wi ci dundu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu doon kéemaanam ci ak yónneem moom yonente bi alayhi salatu wasalaam ci lañ xare weer wi ci ak yónneem kon ci la assaa moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam day wax ci xadis boo xam ne mu ngi ci buxaari daf ne bu'istu ana wassaatu ka haatayni wa qarana bayna sababati wal wusta nee na yónni nañ ma te fekk sama digganteeg yowmal qiyaam nii mel daal di tàllal baaraamu joxañukaay bi ak baaraam bi ci digg bi ñooñu ñaar dara doxut ci diggante bi kon kooku day wone ne biñ ko yónnee wàcce sharia bi mujj ci sharia yi muy diine ji mujj ci diine ji nga xam ne duñu wàccee ci yeneen diine beneen yonent yi du ñëwaat kon dara sësu fa lu dul rek àdduna tukki wala saa taxaw ah dadi nag saa ginnaaw kenn xamut kañ la ñàkkul ay mandarga yoo xam ne suñ ko gisee rek ñi xam ne kon soreetul mandarga yooyu nag ñaari xaaj la dañ koy tudde alaamaat sugra ak alaamaat kubra wala ñu koy tudde ashraatu saa assugra wa ashraatu saa alkubra maanaam mandargay tukkib àdduna wala taxawuk saa yu ndaw ak yeneen i màndarga yoo xam ne yu mag la yu ndaw yi buñ koy gis tekkeegul ne rek mbir mi jeex na tàkk waaye yu mag yi nag boo koy gis rek xamal ne yëf yi agsi na foofa moom mbir ma dal nay agsi yu ndaw yi nag njariñam mooy ku ko fekkee nga gaaw tuub loolu mooy njariñam ndax boo tuubee danañ nangu sa tuub su fekkee ne màndarga yu ndaw yi ñoo ñëw su dee yu mag yi la nag foofu kenn duutu nangu tuub loolu lu mat a bàyyi xel la mandarga yu mag yi dëgg yi wane ne saa taxaw ne yooyu su agsee ku tuubati it duutu la jëriñ dara bokk na ci màndarga yi nga xam ne boroom xam-xam yi danañ ko faral di tudd mu bokk ci yu ndaw yi yooyu nag yu bari lool lool lool la waaye bokk na ci lii may bëgg a tudd su ma noppee danaa tudd lenn ci ay firnde ci sunna yu koy tegtale moo di ne bokk na ci an taqilla al amaana wa taksura al xiyaana kóolute akug wér day dem ba néew lool warante bari lool kooku bokk na ci màndarga yu ndaw yi nga xam ne ku ko gis rek war ngaa tiit tàmbalee tuub bokk na ci kasratu nisaa wa qillatu rijaal jigéen ñi bari góor ñi néew lu ci nekk dalilam dana ñëw ci kanamam bokk na ci kasratu zina wa shurbil xamr wal ghina barik njaaloo ak barik naan gu ñuy naan sàngara ak bari gu ñuy jëfandikoo way ak misig ak yu ko nuru bokk na ci uququl walidayn di ñaawal sa digganteeg sa ñaari waajur loolu ci màndarga yooyu ci la bokk bokk na ci at tataawul fil bunyaan sutleente ay tabax ku tabax mu gudd rek keneen fexe ba tabax beneen bu gën a gudd boobu keneen fexe ba tabax bu gën a gudd boobu bokk na ci kasratul amwaal alal yu bare bare bari bay tuuru bokk na ci taqaarubu zaman jamono ji day mel ni dafa gàtt mel ni dafa gàtt lool ba li ci xajoon xajatu ci su boobaa nag fekk na jamono nam toll woon la toll waaye barke ba lañ nocci barke bu waxtu moom lañ nocci bokk na ci màndarga yi ci gën a garaaw moo di qillatul ilmi wa kasratul jahl néew goo xam ne xam-xam dana ko néew ak bari goo xam ne réer ak ñàkk xam diine dana ko bari bokk na ci yooyu ñu dem ba lu baax soppi ku mel ne mooy lu bon lu bon dem ba mel ne mooy lu baax far an yusbixa almaarufu munkaran wal munkaru maarufa ñu dem ba la baaxoon day mujj mel ne faf mooy la bon nga xam ne ku nekk ci lu baax yow la ñuy yedd naa la da waroon dellu gannaaw da ngaa a def ndànk danga ngaa war a wëlbatiku def nii nangam nangam ña nekk ci lu bon ñooñu day mel ni ñoo nekk ci lu baax wax dañ naan ñii ñoo dëppook société bi ñii ñoo dégg jamono ñoo mel nii di leen melal melokaan yoo xam ne day mel ni ñooñu ñooy ñu baax ni wa an takuna sunnatu bidaatan wal bidaatu sunna dem ba jëmmi jamono mel ne bidaa ci boppam mooy sunna sunna ci boppam mel ne mooy bidaa maanaam bët yu mel noonu la ko nit ña di xool loolu lenn rek la ay junj ci ay màndarga yoo xam ne su demee ba siiw tasaaroo nañ xam ne ci màndarga yi <clears throat> jegeek as-saa muy yowmal qiyaam ñu xam ne ci la bokk danañ tudd ci lenn ci ay yoo xam ne day tegtale lenn ci loolu an abi hurayra radiallahu anhu an annabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qaal jële nañ ci abu hurayra mu jële ci yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne yataqaarabu zaman wa yanqusu alamal wa yulqa alshuh wa tazharu alfitan wa yaksuru alharj qaalu ya rasul allah ayuma hu qaal alqatl alqatl yonente bi alayhi salaatu wasalaam ne da ngeen dem ba jëmmi jamono su àdduna defatul lu bari nga gis ne jamono ji day mel ne dafa gën a jege yaakaar naa ne kenn kuy xool ku nekk boo xalaatee waxtu ni muy demee dangay am tiitaange ci mbir yi sax loo bëgg a def lu ne boo nattablee ne danaa ko def rek bootul doo ko def ndax leneen yi ñëw toog palaasam loola sànku leneen ñëw toogaat palaasu la loola sànku it yi ak soxla yi dafa dem ba mel ne moo ëpp li nit ki am ci waxtu lu mel noonu nag su amee ba noppi caaxaan bari ak fo lu bari ci waxtu yi day sànku su ko defee nag barke ci boppam day daal di génn ci waxtu doomu aadama kon moo tax mu ne yataqaarabu zaman jamono ji day dem ba mel ni dafa gën a jege nee na wa yanqusul amal te jëf ci boppam day dem ba néew maanaam wax mooy gën a bari jëf jaamu yàlla ak na nga sonn ci diine ak nangoo sonn ci def lu baax nangoo sonn ci lu bàyyi lu bon day dem ba néew su ko defee nee na nay itam dafay am day tasaaroo day dem ba fitna yi dañuy feeñ fu nekk ñu nekk fa mu teg ci ne wa yaksuru alharj nee na li ñuy tudde alharju day bari bi mu waxee loolu saxaaba yi ne ko yow yonente bi yàlla bi harju mooy lan mu ne leen alqatl alqatl nee na loolu mooy reyante rek reyante tuurante ay deret nee na su boobaa loolu day bari kenn ku nekk xam na ne ci jamono ji ko xool li doomu aadama yi dund li ci nekk ci li ñuy xëy di ko faagaagal ci ay doomi aadama yoo xam ne sabab yi kenn xamut lu mu doon ci àdduna kenn xamul lu mu toll bari na lool xadis boobu mu ngi ci buxaari beneen xadis boo xam ne mi ngi ci buxaari an abdullah ibni mas'ud wa abi musa al ashari ñaari saxaabi yi ñoo ko solo muy abdullah ibni mas'ud ak abu musa al ashari qaal qaala annabiyu sal allahu alayhi wa sallam inna bayna yaday saaca la ayaaman yanzilu fiha aljahlu wa yurfacu fiha alcilm wa yaksuru fiha alharj walharju alqatl yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na lu jiitu saa di taxaw ay fan am na foofa yoo xam ne nee na réer day wàcc yanzilu réer day wàcc wàcc gu yaato yaatu nit ñi jël ci ay cër yu yaato yaatu ku gën a réer nga ne kii la wa yurfau fiha al ilm nee na xam-xam ba dañ koy yëkkati ndànk-ndànk muy dem waxoon nanu ca xadiisu abdullah ibn amr ibn al aas fi saxiixayni ne xam-xam bi buy yëkkati ko du caagi ni nit ña lañ xamoon yàlla day xëy fi xatteloo leen ko waaye nee na ci faatu boroom xam-xam yi ci lay yëkkatee xam-xam suñ faatoo nag ba desatul lu dul ñu réer nee na su boobaa nit ñi ñi leen di jiite ci wàllu diine ñu réer lañuy doon su ko defee fa dallu wa adallu loolu la mujj xadis ba ñooñu ñu réer la ñuy doon réerale yi itam mooy doon seen liggéey bu boobaa kenn ku nekk xam na ne liy wax ci turu diine tey te boo ko taajoon ci jotaayub diine di ko laaj dëgg-dëgg ci xam-xam la muy wax teguwul ci xam-xam xam nañ loolu lu yaatoo yaatoo yaatu la kon bokk nag kon ci yooyu nee na ay fan yoo xam ne nee na réer dafay wàcc ci suuf mel ne nit taw di wàcce ñu yëkkati xam-xam mu tegaat ci li ma waxoon ci xadis bi ja jàll mu ne wa yaksuru fiha al harj maanaam rayante dafay bari itam lool beneen xadis xadisu abi hurayra euh, tabaraani génne ko cheikh nasir al albani wéral ko ci silsila saxiixa rahimahullah abu hurayra daf ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam nee na laa taqumu saa xatta yadhara al foxshu yowm al qiyaam du ñëw lu dul njaaloo day dem ba feeñ wal buxlu ak nay day dem ba feeñ moom itam wa yuxawwanu l amin kañ wóolu woon day dem ba nañuy jëflanteeg moom sax mooy ni ñu war a jëflanteeg ab warkat nañuy jëflanteeg moom maanaam duñ ko faale ki wóor ci nit ña dem ba sub dërëm woon ci loxo mu laaj ca borom ba gis ko delloo ko ko dañ naan kooku daa dof wala amul wërsëg bët yu mel noonu la ko nit ñi xool wa yu xawanul amin wa yu tamanul xaain warkat ba la ñuy jàpp ne mooy ka yeewu mooy ka muus kooku dafa muus fekk xam na fan lay jaar ba jalgati te du gaaw a feeñ ci kanam nit ñi nee wa tahliku lwuul wa tazharu nuxuut nee na buñ doon fii ñaari baat yooyu nee na su boobaa bokk na ci màndarga ya kóoy ya kóoy ya wala nga ne ponkal ya dañuy alku tungun ya ñu ñàkk ña solo ñooñu ñooy jóg taxaw feeñ qaalu ya rasulallah wa man naxoot wal wool ñu ne ko waaw loo jublu ci ponkal yi ak cuuj yi maanaam tungun yi mu ne alwuul wujuhu nnaasi wa ashraafuhum wattuxootu alladina kaanoo taxta aqdaami nnaas laysa yuclamu bihim nee dañuy dem ba ña suufe woon ci aadaak cosaan tuut suufe woon démb kenn xamu leen du ci xam-xam ci diine du ci ngor du ci ak mbaax ñooy yëkkati ku nekk ca kaw nit ñi ña nekkoon ca kaw ñëpp xam leen ci tiraanga ak mbaax ak njub ak diine ñu wàcce leen bañ féete ci suuf nit ñi teg seeni ca seen kaw di dox kon adduna ak wëlbatikoom loolu ci màndargay assaa ci la bokk comme ni ko yonente bi alayhi salaatu wasalaam jàngalee beneen xadisu abi hurayra itam mi ngi ci tirmidi albani wéral na ko ba tey an abi hurayra radiallahu taala anhu an nabi sallallahu alayhi wa sallam laa taquumu saacatu xata yataqaaraba alzamaan fa takunu saacatu kalchahri wa chahru kaljumuati waljumuatu kalyawmi wa yakunu alyawmu kalsaacati wa takunu saacatu kaxtiraaqi alsafca loolu fedd li li beesu woon la yonente bi alayhi salaatu wasalaam daf ne saa du taxaw lu dul jamono day dem ba jege lool nee day dem ba waxtu day mel ne weer maanaam am at day mel ne weer weer mel ne ay bis mel ne semaine weer wi ni muy jàlle boo ko xalaatee da nga loolu xanaa waratu mat ay bis bi nangam xeweeg léegi ay bis ji nee day mel ne bis buñ ne lii xew bis ne tey la xewoon ca talaata ja da naan lool kay dafa mel ne démb la xewoon ndax dafa jege nee na li xewoon ci bis bi day mel ne waxtu day mel ne une heure de temps rek la am ndekete ca suba la woon léeg-léeg ngay jaawale sax li amoon tey li amoon démb far ndax jegeegu gu mel noonu ci wàllu jamono kon kooku yonente bi alayhi salaatu wasalaam daf cee fedd li li nga xam ne moom moo weesoon li lépp ci màndargay saa yu ndaw yi ci la bokk bokk na ci yi koy leeral xadisu anas ibnu malik radiallahu taala anhu qaal uxaddisukum xadisan samictuhu min rasulillahi sal allahu alayhi waalihi wa sallam laa yuxaddisukum axadun bacdi annahu samicahu min rasulillahi sal allahu alayhi waalihi wa sallam anas nee na maa ngi leen di wax tey xadis boo xam ne ci yonent bi sal allahu alayhi waalihi wa sallam laa ko déggee te nag sama gannaaw amul keneen ku la mën a wax ne dégg na ko ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam kon dafa laa wax ne xadis bi moom képp moo ko jëlee ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam lan la daf ne inna min ashraati saaca an yurfaca al ilmu wa yadhara al jahl mu ne bokk na ci mandarga yi wane ne saaca jege na mooy ñu yëkkati xam-xam mu jóge ci suuf wa yadhara al jahlu nee na réere diine daal di am wa yafshu az-zina nee na njaaloo daal di siiw tasaaroo wa yakthura shurbul xamr nee na naan sàngara bari wa yakthura ar-rijaal ne góor ña bari wa wa yaqilla ar-rijaal góor ña néew wa takthura an-nisaa xatta yakuna li xamsiina mraatan qayimun waaxid nee góor ñi dañuy néew jigéen ñi bari ba àgg ci jenn waay dana mën a yilif lu mat juróom fukki jigéen ñu ne nekk ci biir njabootam ñii doon ay doom ñu ci des doon ay càm ay ay jigéenam ñi doon ay dëkkandoom ñenn ñi doon ay soxnaam waaye kenn ki daal dana mën a yilifaale lu mat juróom fukk ci biir këram di leen dundal di leen jox ñu lekk te fekk benn waay rek la kooku day wane ne eh, lu doy waar la muy bari koo xam ne jigéen ñi danañ ko bari ak néew goo xam ne góor ñi danañu ko néew loolu képp koo xam ne mi ngi seetlu ni jamono di doxe loolu daf koy gis lu bari sax nag ci eh, nit ñi dañ koy delloo ci guerre yi nga xam ne moom moo fi jaaroon te xam ne lu gën a bari góor mooy dem ca guerre ba yanu ngànnaay di xeex ñu ne kon rey gu bari gi am ci góor ñi moo tax góor ñi néew jigéen ñi bari loolu la chaque ne benn sabab la ci sabab yi waaye wér na ne ñiy juddu ci boppam ak foo mën a dem maternité boo mën a dem boo laajee ñun def nañ ci ab gëstu boo xam ne continuer lu mat weer jëflante ci ak ay nit yoo xam ne ci ay maternité lañ nekk foo dem fu nekk danga gis ne la fay judd ci ay jigéen moo ëpp la fay judd ci ay ay góor kooku mbir la mu am moo xam ne kenn nattabliwu ko muy tegtale ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kooku mooy yonent bi ndax mbir la moo xam ne amul woon fekkewu ko boroomam xamal ko ne ko dana am mu wax ko mu amee ni mu ko waxe woon mu xamal la ne boo gisee loolu nag xamal ne asaa soreetul kon li nga gis teg ci sa bët war naa tax nga gëm lim la wax ne soreetul su ko defee loolu puusale nga jëm ci jaamu yàlla def lu baax bàyyi lu bon loolu mooy njariñ nee na laa taqumu saa xatta yubcasa dajjaaluuna kadaabuun qariban min thalathina kullun yazumu annahu rasulullah nee na balaa yowm alqiyaama taxaw ay waxkati lu dul dëgg maanaam ay fenkat yoo xam ne ñu jéggi dayo lañ ci fen ñoo xam ne duñ yées fanweer kenn ku nekk di wax ne ab yonent la te nee na ab yonent amaatul sama gannaaw kon bokk na ci lii wane ne yowmal qiyaama soreetut ay doomu aadama yu jóg taxaw di woote ne ñoom ay yonent lañ wala ñeneeni nit di leen wooteel ne leen ñoom ay yonent lañ ba noppi ñu dégg lu wala nangu ko loolu ci boppam day wane ne ci màndargay yowmal qiyaama ci la bokk loolu it léegi léeg nga jekki ba jëmmi jamono nga dégg ku ko woote wala kuñ ko wooteel dana di am moo xam ca penku la wala ci sowu wala fu mën a doon léegi léeg nga dégg ko ci biir réewi jullit yi ak lu dul réewi jullit yi sax ay nit ñuy dem ba mu yàgg ñuy woote ak yonent ñaari ñi koy def nag duñ tëb tëb rek daal di ne eh, ay yonent lañ ndax suñ ko defee nit ñi weddi leen waaye dañuy tàmbalee ci won nit ñi ak mbaax bu yàggee ñu won leen ak wilaaya bu yàggee ñi ne malaayka yi ñaa ngi ñuy feeñu bu yàggee ñu jàll ba mu yàgg nga ne ñu ngi wàcce ci nu nangam noonu lañ leen di jàppe tuuti tuuti tuuti tuuti di dem ba àgg fa ñu fa jëm ak ñoom xadiisu abi musa al ashari ba tey ci saxiixu muslim yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dane inna bayna yaday saa fitanan ka qitaa'i leyli al muzlim nee na lu jiitu saa di taxaw ay fitna am na foofu yoo xam ne dafa mel ne guddi gu lëndëm maanaam fitna yu lëndëm qitaa leylil muslim mooy guddi gu lëndëm goo xam ne kii dox du xam fu muy teg tànkam sax fitna yooyu bu ñëwee day dem ba doomu aadama ji ci boppam du xam sax moom lan la war a def far ki yàlla mayul tawfiq mu gindiku ci leeru alquran ak sunna day dem ba gëlëm duutu xam fii la jëm walla fële la jëm ngir bari ñu koy xëcc di ko wax fii la su ko defee nee na yusbixu rajulu fiha muminan wa yumsi kaafira nit ki mën naa xëy xëyaale imaan jant di so fekk soppiku na ab yéefar wala iyaasu billah wa yumsi muminan wa yusbixu kaafira mën naa gont fanaanoo imaanam asamaan di set fekk imaanam dem na ndax yu ndax bari goo xam ne bari na ko ay mbir yuy wàññi imaan ak ay mbir yoo xam ne dañuy dindi imaan nee na wal qaa'idu fiha xayrun min al qaa'im fitna yooyu bu ñëwee nee na ka toog moo gën ka taxaw wal maashi fiha xayrun min as-saa'i kay dox moo gën kay daw kay dox moo gën kay daw maanaam fitna yooyu bu ñëwee la gën mooy def ca ndànk teey bañ caa jaxasoo mu bañ laa yóbbaale su fitna ñëwee ba laaj bàyyi jaxasoo sax ci bépp mbir boo xam ne boo ca jaxasoo mën na laa indil fitna juy yóbbu sa diine su boobaa nee na nga gàtt tànk ca loola bu dee lu ñuy wax nga gàtt ca làmmiñ bu dee lu ñuy xool nga gàttal ci say bët su boobaa loolu moo lay may tawfiq ndax kat bari na yu nit di dox di jëm tey ci suñ jamono te fekk yuy dindi ngëm yàlla lay doon wala yu koy wàññi léeg-léeg mu yor turu pop léeg-léeg mu yor turu diine léeg-léeg jox ko yeneen i tur bari na lu nit ki di xool wala mu di ko seetaan fekk lam cay jëlee ci lu koy lor ci wàllu pas-pas kenn xamul nu mu toll su ko defee bu boobaa gàttañ lu bañ caa bokk loolu mooy jaadu <coughs> beneen bi moom it xadis xasan la abu hurayra moo ko génne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ne walladi nafsi bi yadi laa tafna hadihi al umma xatta yaquuma arrajulu ila almara fa yaftarishuha fi ltariq fa yakunu xiyaaruhum yowmaidin man yaqul law waaraynaahuma waraa hada alxaaid wa fi riwayatin yaqulu amsaluhum law ictasaltum altriq nee na xeet wi du jeex maanaam àdduna du tukki lu dul yàqute gi ak mbon gi dana dem ba àgg ci lii muy wax nee na dana dem ba góor man di dox ba jàpp jigéen tëral ko ci yoon di séy ak moom bëccëgum dara kàmm nit ña di leen romb nee na su boobaa ña fa tane mooy ña di romb naan leen yéen day bu ngeen suturlu woon mooy gën yéen day bu ngeen suturlu woon mooy gën nee na ñooñu ñooy tane bu boobaa loolu day wane ak mbon gu tasaaroo ba jéggi dayo ak sori goo xam ne itam nit ñi sori nañ ko digle lu baax ak tere lu bon bu boobaa yii nit ñi di tasaare ci jamono di wax ne liberté la nit ki lu ko neex sañ na koo def te yitam sañoo fekk ku libre koo xam ne mi ngi def li ko neex ci ak dundam nga di ca dugg loolu foofu la jëme nit ñi day dem ba àgg ci boo demoon fekk ku bon ku tëdd ci mber mi di mooy yàlla boo ca duggee ñene la kooku yaa ko tooñ ndax yaa ko fekk mu nekk ci loo xam ne vie personnel am la doon la doon la doon jëfandikoo maanaam ak dundam koo xam ne dundu boppam la sañ na koo def nga ñëw di ca dugg kon yaa ko tooñ su demee ba mbir yi àgg foofu mooy tax ñu dem ba ku gisati kuy def lu bon day mujj duutoo ko ñëwee wax sax dara wala nga di ko tere wala nga koy digal kooku musiba la moo xam ne su demee ba wàcc xeet wala iyaasu billahi bu mbugal ma agsi ñépp a cay bokk kanaan su ngeen muuru woon ak su ngeen beru woon ñoo ca yem kon digle lu baax ak tere lu bon bokk ni ci yi nga xam ne yu mënta ñàkkal kon loolu lenn la ci màndarga yi nga xam ne saa boo leen gisee xamal ne e, taxawu saa soreetul maanaam ci màndargu yu ndaw yi la ay xuppe la yoo xam ne dafay xupp nit ñi ngir ñi dellu ci seen boroom ngir ñu def lu baax ngir ñu bàyyi lu bon ngir ñu gëstu diine ngir ñu jàpp ci alquran ngir ñu jàpp ci sunna te wattandiku caaxaan am na nag mandarga yu mag yi moom euh, yàlla na yàlla baaxe ban bañ koo bañ cee teg bët parce que yooyu bu dikkee ku mu fekkul woon nga tuub su boobaa boo tuubatee itam amatul benn njariñ benn xadis a ngi bu gudd boo xam ne Abu Hurayra moo ko nettali jële ko ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam eh, danañ ko tudd jaar ci insha allah su ko defee junj lenn rek ci mandarga yu mag yooyu nga xam ne mooy mandargay qiyaamu saa yi gën a mage muy ashraatu saa al kubra biir xadis bi nag tabbalaale nañ ci lenn ci ay mandarga yu ndaw waaye li ci ëpp mandarga yu mag la an abi hurayra taala anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaal maanaam xadis abu hurayra dafa jëlee ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam xadis bi mi ngi ci saxiixu albuxaari mu ne laa taqumu saaca xatta taqtatila fi fi'ataani azimataan takunu baynahuma maqtalatun azimatun dacwatuhuma waaxida kooku lenn ci boroom xam-xam yi wax nañ ne ci màndarga yu ndaw yi la bokk ndax ñoom dañuy wax ne am na ba noppi daf ne yowmal qiyaam du ñëw lu dul ñaari kuréel yu màgg ñaari kuréel yu màgg danañu xeex xeex boo xam ne xeex bu rëy la danañu rayante rayante boo xam ne bu jéggi dayo la te nee na ñaari kuréel yooyu daawatuhuma waaxida seenu woote benn la ñoo bokk lenn lu ñuy woote loolu nag moo tax lenn ci boroom xam-xam yi ñu ne loolu dafay nuróog li xewoon ci njëlbeenug lislaam ci xeex yi amoon moo xam li ñu tuddee maarakatul jamal la wala li ñu tuddee maarakatu siffin ñaari xeex la yoo xam ne lu bari ci saxaaba yi fekke nañ ko lu bari ci saxaaba yi seeni deret itam tuuru na ci te la chaque ni ñi séqoon xeex ba di xeex ñoom ci seen bopp kenn ku ci nekk ci njub nga nekkoon mu doon pexe moo xam ne seytaane moo ko fexe ba fénqale seen diggante xeex boobu dox seen diggante deret yi fa tuuru tuuru fa dafa am ci boroom xam-xam yi ñoo xam ne loolu lañ firee euh, rayante boobu nga xam ne dafa dox diggante ñaari kuréel yu màgg te fekk ñoom ñaar ñoo bokk lenn lu ñuy woote mu teg ca ne wa xata yubcasa dajjaaluuna kadaabuuna qaribun min salaatin kulluhum yazumu annahu rasulullah beneen màndarga bi mooy ci yim tuddoon la nee na yowmal qiyaam du taxaw lu dul mbooloo moo xam ne ay fenkat lañ kenn ku nekk di wax ne yonent la noonu itam danañ feeñ mu teg ca ne wa xata yuqbad al ilm nee na yowmal qiyaam du taxaw lu dul xam-xam danañ ko jël yëkkati ko wa takthura zalazil li ñuy wax tremblement de terre muy suuf yi di yëngu ay musiba yu rëy di xew ay nit di ca faatu nee na loolu itam day bari wa yataqaarabu zaman yi yëpp ci màndarga yu ndaw yi la ci yiñ tuddoon la nee na su ko defee waxtu itam day jege day néew jamono ji day day gàtt wa ne fitna yi bari wa alharju wa huwa alqatl na rayante bari wa xatta yaksura dañuy dem ba alal ji bari fa ne alal day bari ba baawaan ne xatta yahum rabbul maali man yaqbalu sadaqata nee na ba borom alal ji njàqareem mooy fan lay jële ku jël saraxam bii mu xëy génne loolu moom defe naa ak seegut maanaam saraxam bii mu xëy génne mu doon alal ju duun mu yore ko fan lay jële tey ku ko nangoo fab loolu mooy doon itteem bu keroogee loolu ak seegul moom ndax defe naa ne juróomi dërëm képp bu xëy yor ko da nga daal di gis ku ko nangu fi saa si kon mel na ne kooku ci màndarga yu mag yi ci la bokk li nga xam ne day dem ba nit ñi kenn ku ne bari alal ña fa nekk kenn ku ne bari alal ba duutoo soxla alali keneen wa xatta yaaridahu fa yaqulu alladi yaaridu alayhi laa araba li fiihi ne day dem ba day àgg ci tàllal alalam naan ku bëgg na ñëw jël ne ku ko romb ne ko ah loolu de man soxlawuma ko laa araba li fiihi wa xatta yatataawala annaasu fi lbunyaan nee na day dem ba nit ñi tam di ëpp ëpplente ay tabax wa xatta yamurra rajulu bi qabri rajul fa yaqulu yaa laytani makaana ne dañuy dem ba nit ki romb xabrum nit ne ak a neexoon maa tëdd fii waay ngir fitne yu bari ak jafe-jafe xoolal ñàkk barke dund gi ku dem ba li nga yor ci alal da ngay xëy doo gis ku ko nangu waaye mettik àdduna ak texeedik àdduna tax nga dem ba boo rombee ki tëdd ci bàmmeel danga koy ñee ne ak a neexoon muy man ngir fitna yu bari ak ñàkk sécurité ak ñàkk ñàkk dund gu teey mooy gaar nit ñi bu boobaa ba dey àgg ci nit ki ak lim yor alal ju bari yépp mi ngi ñeetaan ki tëdd ci bàmmeelam wa xatta tatluu alchamsu min magribiha nee na ba jant bi fenke nag fi nga xam ne fi la daan soo kooku moom mooy màndarga yu mag yi la bokk dem ba jant bi nga miinoon ne ci penku lay fenke di soo ci sow ñu xëy xëy benn bis rek jant bi jékki-jékki fenke ci wetu sow dox nag jëm penku su boobaa moom nee na fa ida talaat wa raaha annaas amanu ajmain nee su fenkee ba nit ñi teg ko seeni bët mu jóge sowu jëm penku nee ñi nekk ci kaw suuf ñépp ka doonoonub yéefar ak ka nekkoon ñi ci caaxaan ak ñépp dañuy daal di wëlbatiku nag ne nun de gëm nañ yàlla fas nañ yéene jaar ci siraatul mustaqim fas nañ yéene jàpp ci alquran ak sunna nee na fa dalika xiina laa yanfacu nafsan imaanuha lam takun aamanat min qabl aw kasabat fi imaaniha xayra nee na su boobaa booba bis mooy bis bi nga xamee ne tuub jëriñatul boroomam ci nekkul woon ci diine ji gis jant bi fenk jóge ci soow bi mu ne ñëw naa ci diine ji su boobaa duñ ko nangooti nekkul woon ci njub jaaroo ci siraatul mustaqim gëmul woon ne alxuraan ak sunna moo mën a jàngal nit ñi diine mu nekk ca la ko neex ba bis boobu mu xëy xëy ne ah man de tey wëlbatiku naa ana gaa ya doon woote alxuraan ak sunna yéen laa àndal tey yonent bi nee na ko déedéet yàlla nangootul tëj nañ bunt yi fa dalika nee na bis boobu xiina laa yanfau nafsan imaanuha mooy bis bi nga xamee ne benn bakkan ngëmam ko mën a jariñ dara lam takun amanat min qablu su fekkee ne gëmul woon lu jiitu loola aw kasabat fi imaaniha xayra wala sax gëmoon na waaye deful woon lu baax mu jekki ba bis boobu mu bëgg a tàmbalee def lu baax lu baax loola duutu ko jëriñ dara ngir mu jox lay misaal rek ci taxawu saa buy am ak gaawaay bi ni muy ñëwee yonente bi alayhi salaatu wasalaam nee na wala taquumanna saatu waqad nashara rajulaani thawbayhima fala yatabaayaani wala yatwiyaani nee na taxaw bi buy taxaw ni muy gaawee maanaam tukkitel àdduna da ngay gis ñoo xam ne dañoo lal seenum njaay ay yéere lala lal bay jaay rek nit ñëw taxaw di waxaale neena njaay ma du àgg te occasion pour mën a lemaat yéereem ba jël ko sax du ko am ci diggante bi lay xew-xew mu jeex wala taqumanna saatu wa qad insarafa arrajulu bi labani laqxatihi fala yataamu nee na dana taxaw fekk ki xëyoon dem ratti ab gàttam wala mu ratt aw nagam ba yor am soowam di ñibbisi rek nee na soow mooma du ko mos kon lay xew di jekki-jekki ni këlëb rek mu jeex wala taqumanna saatu wa huwa yuliitu xawdahu fala yusqa fiihi nee na day xëy di duy mbàndam wala defukaayu ndoxam ay butéelam nee na ndox mu muy duy téye ko ci loxoom sax du àgg ci gimiñam lay xew-xew wala taquumanna saatu wa qad rafaa aklatahu ila fiihi fala yataamuha ne da gis ku tibb ab tibb ba jëmale ko ci gimiñam du àgg ci diggante boobu kon mbir la mu gaaw gaaw moo xam ne li borom bi tabaraka wa taala di wone ci yëngu yi suuf di yëngu misaal la ci léeg-léeg nga dégg yëngu boo xam ne dañ lay wax ne boo ko nattee mat na six degré ci li ñu tudde rëxtar nga xam ne loolu daanaka ci ay seconde ci ay seconde rek li xew lépp ci lay jekk xew jékki-jékki xew ñu di la limal ay nangami téeméeri junni nit yoo xam ne dañ ciy faatu ci sababu suuf su xarak ay tabax yu daanoog ndox mu baawaa nag lu mel ne li xewoon Indonésie dégg ngeen ko te jeexagul ba léegi mi ngi xew ci àdduna ci ay seconde lay xew lu mel noonu daal di gaar nit ñi ci lu gaawee noonu kooku misaal la ci bu yonente bi alayhi salaatu wasalaam waxee ne saa buy taxaw nit ki lam ko fekk loola du àgg ngir gaawaay bi lu mel noonu misaal la ci kon loolu lenn la ci màndargay saa bokk na ci ci ak gàttal ngir ñu bañ a dem lu bari lool lool lool euh, nu gàttal rek yi nga xam ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam tudd na ko ne màndarga yu mag la bokk na ci alxusuufu salaas maanaam ñetti fan yoo xam ne ay muuru jant day am ak muurug weer ñi nee nañ jant bi dañ muuru tey bu ëllëgee weer yu muuru bu ëllëgee jant bi muuru bu ëllëgee weer yu muuru ba mat ñetti fan kooku ci màndarga yu mag yi la bokk ñi nga xam ne dañuy xool wàll muurug jant ak wàllu muurug weer ci wàllu science bu ñu ko doon gëstu di def seeni calcul dañuy wax ne loolu munta nekk maanaam jant bi muuru tey bu ëllëgee weer yu muuru jant bi muuru waat weer yu muuru waat ba mu mat ñetti fan ñoom seeni calcul li muy joxe mooy loolu day mel ni munta nekk waaye nag xabaaru koo xam ne lam la wax lu dul dañ la loolu la kon dafa bokk ci yi nga xam ne nit ki dañ koy gëm ni nga gëme ne jant bi bisa ngi ñëw boo xam ne day xëy fi mu doon fenke mu fi doon soow mu fenke foofu noonu ngay gëme ne ñetti muuruy jant yu tegaloo yu amee noonu dana am bokk na ci ak duxaan <coughs> muy saxaar soo xam ne day jékki-jékki rek muur jant bi ñu séen ko muy ñëw am na xadis yoo xam ne dañuy wax ne côté Cham lay jóge ñu séen ko muy ñëw muur jant bi saxaf su metti soosu nga xam ne doo xam luy sabab si ak fu mu jógee waaye bu ñëwee nit ki ci boppam dana lëndam ba kim dendal du ko gis bu tàllalee loxoom du ko gis saxar soosu dañu wax ne bu jàllee ngelaw lu sedd li rey ñu baax ñu des ci kaw moo ciy tegu ndax kat xam nga ne yowmal xiyaam buy taxaw du fi fekk ku baax ñoom fi fekk ñépp ñu bon la doon moo tax yonente bi alayhi salaatu wasalaam wax na ci xadis bu wér mu ne laa taqumu saatu wa ala al ardi man yaqulu la ilaha illa allah bu yowmal qiyaam di taxaw kuy wax laa ilaha illallah duutu nekk ci kaw suuf maanaam ñay texee di rek ñoo fay nekk ku fa desoon ba loolu nar la fee fekk <coughs> bu saxar si jàllee ngelaw lu sedd guy mooy ñëw su agsee ñu baax ña daf leen di gëmmeentuloo ñu daal di nelaw nelaw yooyu mooy seenu faatu ñu dëng ñaag yéefar yaag yooyu ñu des fa ne kojj ngelaw la du leen nelawloo su ko defee musiba moo ci daal di tegu fekk leen ba cay tegu mooy xurujul masiixu dajjal al masiixu dajjal ab noon la boo xam ne bu mbiram jéggi dayo la danañ tudd tuuti ci ay melokaanam euh, jëmm la joo xam ne fitna la ci ñi ne ci kaw suuf bu bis boobaa ndax day woote ci boppam ne nañ ko gëm képp ku ko gëm musibal lay andil képp ku ko weddi yiw la lay andil bu boobaa bokk na ci xuruuju daabba menn mbindeefum yàlla muy génn moo xam ne melokaanu mala la yor bu génnee day wax ak nit ñi di leen waar di leen nettali ay yëf yoo xam ne yu ko boroomam xamal lay doon bokk na ci xuruuju ya jooja jooj aw askan woo xam ne yaa jooja wa ma lañ leen tudde ñu doon ñoo xam ne ñu dëng lañ nettali nañ seen mbir ci suuratul kaf donte am na ci lenn ci borom xam-xam yi ñuy jàng jëm di wax ci ne ñooñu génn nañ ba noppi waaye li gën a wér mooy seenu génn ci mujjug jamono la kon tuloo shamsi min maghribiha fenkub jant bi fam daan soo ak naarun taxruju min qaari adan yonente bi alayhi salaatu wasalaam nee na sawara woo xam ne dafay génne ca xur ya nekk ca adan muy ca fi ñuy wax yaman sawara woow bu génnee day tàkk ba daj àdduna gépp bokk na ci loolu nuzulu isa ibnu mariam alayhi salaam delsiwaat gi nga xam ne isa ibnu mariam dana ko delsiwaat ci àdduna euh, kooku ci yi wone màndarga yi yowmal xiyaam yu mujj yi yu mag yi ci la bokk bala ñoo jeexal bind bi ñu jaar tuuti ci almasiixu dajjaal moomu ndax ñi xam moom mooy kan yonente bi alayhi salaatu wasalaam dafa joxe ci moom ay xabaar yoo xam ne melal na ci na muy mel melal itam li mën a musal nit ki ci moom wax ay béréb yoo xam ne danañ ci mucc euh, lenn nag ci nit ñi nga xam ne dañoo yor ay xel ak di faral di jëfandikoo seen xel ci texte yi am na ci ñuy dem ba jàpp ne masiixu dajjaal dafa ñëw ba noppi di ko firee li nga xam ne moom la àdduna di dund tey jàpp ne loolu mooy masiixu dajjal waaye kooku njuumte bu rëy rëy rëy la bi ci jiitu mooy ci mandarga yi yowmal xiyaam yu mag yi ci la bokk beneen bi mooy melokaan yi yonent bi alayhi salaatu wasalaam joxe day joxe ne kooku jëmm la waaye nekkul ab civilisation comme niñ ko ñenn ñi di firee kon ñu firee ko ni ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam firee al mughiratu bnu shuba radiallahu taala anhu ci xadis boo xam ne Buxaari moo ko génne daf ne ma saala ahadun annabiya sallallahu alayhi wa sallam an addajjaali ma saaltuhu nee na li ma laaj yonente bi alayhi salatu wasalaam dajjaal kenn mosu koo laaj lu tol noonu wa innahu qaala lii maa yaduruka minhu nee ma di ko ko laaj bam ne ma waaw yow lum lay wàññi dajjaal lu mu lay wàññi yow nee ma ne ko li annahum yaquluuna inna maahu jabala xubzin wa nahra maa nee na ma ne ko dama dégg ñu ne day yor menn montagne moo xam ne mburu la yor itam ak dex goo xam ne ndox mu neex la maanaam loolu lay ci lay woo nit ñi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko bal huwa ahwanu ala allahi min dalik yonent bi ne ko dajjaal moo gën a doyadi fa yàlla mu di ko jox lu toll noonu mu di ko jox lu toll noonu waaye nag yàlla may na ko ay may yu bari beneen xadis bi an naafi an ibni omar an nabi sal allahu alayhi waalihi wa sallam qaal awaru layn lyumna ka annaha aynabatun taafiya bokk na ci màndarga yi dajjaal nee na benn bët la yor dafa pat nee na beneen bët ba ci des dafa mel ne benn raisin moo génn ci bët bi maanaam dafa génn daal ba doon lu réere ci bët bi ci des kon beneen bët ba du gis benn bët bi rekk mooy gis kooku mandarga bu leer naññ la ci jëmm jën ci xadiisu anas ibn malik radiallahu taala anhu moom itam mi ngi ci buxaari ci kitaabul fitan qaala qaala nabiyu sal allahu alayhi wa alihi wa sallam yajiu dajjal xata yanzila fi naaxiyati almadina summa tarjufu almadinatu salaasa rajafat fa yaxruju ilayhi kullu kaafirin wa munaafiq nee na dajjaal bu ñëwee ba jub madina mooy dëkk yonente bi alayhi salaatu wasalaam du mën a dugg dëkk ba ca bitib dëkk ba foofu lay yem nee na su ko defee madina ci boppam dana yëngu ñetti yoon dana yëngu ñetti yoon yëngu googu su amee la nekkoon ci biir màddina ci ay nit ñoo xam ne seen imaan wérut maanaam ay naafeq lañ wala ñu doon ay yéefar dañuy génn Madina dem wuy ji dajjaal dañuy génn màddina dem wuy ji dajjaal ci xadiisu Abu Bakra an nabi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi ci Buxaari ba tey laa yadxulu almadinata ru'bu almasixi dajjaal wa laha yowma idin sabaatu abwaabin ala kulli baabin malakaan foofu dafa ñëw leeral lan moo tax dajjaal du dugg dëkku yonente bi sallallahu alayhi wa sallam muy almadinatu nabawiya nee na dajjaal ak tiitaangeem yam yoraale duñu dugg madina nee na bu bés boobaa madina juróom-ñaari bunt lay am benn bunt bu nekk ñaari malaayika nga ci yu koy garde kon dajjaal du dugg madina am na beneen xadis xëy na dana ñëw ci kanam tuuti ne madina ak makka rek ñooy ñaari dëkk yi mucc ci dajjaal dugg ko xadisu anas ba tey ci buxaari qaala nabiyu sal allahu alayhi wa sallam maa buisa nabiyun illa andara ummatahu al awara al kadab ala innahu awaru wa inna rabbakum laysa bi awar wa inna bayna aynayhi maktubun kaafir xadiisu anas kon ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam daf ne mosuñoo yónni ab yonent lu dul mu xupp aw xeetam wattandiku lee wattandiku loo leen almasiixu dajjaal yonent bi mi ngi ko tuddee al awarul kaddaab patt bu mën baa fen patt bu mën baa fen mooy ki yor benn bët boole ko mën a fen mu ne leen ala innahu awar mu ne xam leen ne moom benn bët la yor wa inna rabbakum laysa bi awar te seen boroom day moom yorul benn bët seen boroom mu yàlla yorul benn bët li tax mu wax leen loolu mooy dajjaal bu ñëwee day wax ne mooy seen boroom loolu lay wax nit ña kon la màndarga ba gën a fés ci ne waxul dëgg moo di ne seen boroom yorul benn bët te kooku benn bët la yor nee te ci diggante ñaari bët ya bët bu yàqu ba ak bu baax ba yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na dañ fa bind kaafir baatub kaafir lañ fa bind am na xadis boo xam ne day leeral ne kaafir jooju ku mën a bind ak ku mënta bind ak ku mën a jàng ak ku mënta jàng ñépp boo xoolee danga ko mën a liir ci jëba ñu bind ca ne kii kaafir maanaam yéefar la ci xadisu abi umama albahili ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam mas nañoo defal benn xutba boo xam ne moo gën a gudd ci xutba yi mas a wax lu jëm ci dajjaal wa xaddaranaahu nee na mu wattandiku loonu ko fa kaana min qawlihi annahu qaal innahu lam takun fitnatun fi l ardi mundu dara allahu durriyata aadama azam min fitnati dajjal mu ne yàlla bi mu bindee aadama ak tey musula wàcce ci suuf fitna bu gën a tar fitna almasiixu dajjal wa anna allaha lam yabas nabiyan illa xadara ummatahu dajjal yàlla musta yebal ab yonent lu dul mu wattandikuloo aw xeetam dajjal wa ana axirul anbiya te man maay ki mujj ci yonent yi wa antum axirul umam te yéen itam yéen a mujj ci xeet yi kon maay yonent bu mujj bi yéen ay xeet bu mujj bi mu tëj ca ne wa huwa xaarijun fiikum la maxaalata te moom moom yi dana génn fekk fi sama xeet wi kon la maxaalata maanaam loolu moom du dañ mukk faw mu génn fekk fi ñenn ci xeet wi fa in yaxruj wa ana bayna dahranaykum fa ana xajijun li kulli muslim mu ne leen su génnee te fekk maa ngi nekk ci kaw suuf kooku maa leen di layal maay dox seen diggante ak moom wa in yaxruj min baadi fa kullu mriin xajiiju nafsi su génnee sama gannaaw nag kenn ku ne yaag sa bopp kenn ku ne yaag sa bopp wallahu xalifati ala kulli muslim mu ne yàlla moo may wóotu ci jullit bu nekk kon li am solo mooy fexe ba bokk ci bokk ci jullit yi mu ne wa innahu yaxruju min xillatin bayn alsham wal iraq fa yaiisu yaminan wa yaiisu shimala mu ne buy génn diggante Cham ak Iraq lay génnee Cham mooy fi ñuy tuddee Syrie tey Syrie ca digganteem ak Iraq nee na foofu la dajjaal di génnee tàmbali nag nee na di yàq ndey joor di yàq càmmooñ yonente bi ne yaa ibadallah ayuha nnaas fasbutu nee na mu ne yéen doomu aadama yi sax leen dëgër leen jafandu leen ci li ngeen xamoon ci diine wa inni sa asifuhu lakum sifatan lam yasifha iyaahu nabiyun qabli danaa leen ko melalal melokaan woo xam ne benn yonent mosu koo melal aw xeetam mooy mooy laabiir gi alayhi salaatu wasalaam innahu yabda'u fa yaqul ana nabi nee na bu tàmbalee day wax ne ab yonent la yonent bi nee na wala wala nabiya baadi nee tam yonent amul sama gannaaw de summa yusanni fa yaqul ana rabbukum al aala nee na lam cay teg su amee ñu ko gëm ci yonent googu muy woote mooy mu ne ana rabbukum al aala maay seen boroom ba gën a kawe nag wala tarawna rabbakum xatta tamuutu yonent bi nee te xamoon ngeen ne seen borom du ngeen ko gis lu dul su ngeen faatoo kon su ngeen nekkee ci kaw suuf ku dikk ne leen maay seen boroom xam leen waxul dëgg seen borom du ngeen ko gis lu dul su ngeen faatoo wala tarawna rabbakum xata tamuutu wa innahu awaru nee na te moom moomu dafa pat wa inna rabbakum azza wa jalla laysa bi awar te seen borom tabaraka wa taala moom pattul wa innahu maktubun bayna aynayhi kaafir yaqra'uhu kullu muminin kaatibin wa gayri kaatib nee na dañoo bind ca jéba baatub kaafir muy yéefar la képp ku gëm yàlla bis boobu dana ko jàng bu liiree rek daal di koy jàng moo xam ku mën a bind la moo xam ku mënta bind wa inna min fitnatihi ann maahu jannatan wa naara nee na bokk na ci fitnaam mooy day yor àjjana yor sawara loo xam ne àjjana lañ ko mën a tudde loo xam ne sawara lañ ko mën a tudde fa naaruhu jannatun wa jannatuhu naar sawaraam na àjjana la àjjanaam ja sawara la loolu mooy lan mooy ku gëm ajjanaam ja ba wuy ji ko tabbi sawara ngay def sawaraama ku ko weddi ba nattu dal ci sa kaw ajjana ngay dugg maanaam boo duggee ci sawara wa ajjana ngay fekk mu doon ko ndax toppoo ko boo duggee ci ajjana la muy tudde ajjana nag waliyaasu billah kooku sawara nga jëm ndax topp nga ko ci la muy woote mu ne faman ibtuliya bi naarihi falyastaxif billah nee na képp koo xam ne fitnaal nañ ko ba mu bëgg a tàbbi ca sawaraam wa nee na na xettaliku ci yàlla wal yaqra fawatiha al kahfi na jàng yi jëkk ci suratul kahf fa takunu alayhi bardan kama kaanat innaaru ala ibrahim nee na même su duggoon ci biir sawara wa woo na ko mu lank bañ koo wuyu mu jàpp ko mbugal ko tabal ko ci sawaraama nee na jàngal suratul kahfi aaya ya ci jiitu da nga fekk sawaraawo mu sedd guy mel na sawaraawo meroon ci yonent yàlla ibrahim sallallahu alayhi wa sallam nee na inna min fitnatihi an yaqula li arabiyin araayta in baastu laka abaaka wa ummak atashhadu day ñëw ci benn waay ab kawkaw kaw ne ko yow sa yaay sa baay dañoo faatu ndax su ma leen dekkalee da nga gëm man maay fa yaqulu bala mu ne ko ah am kay sama yaay ak sama baay kay ku leen dekkal ma gis leen danaa gëm li nga may wax yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne fa yatamassalu lahu shaytaanaani fi surati abihi wa ummihi fa yaqulaani ya bunayya ittabiahu fa innahu rabbuk la xawla wala quwat ne ñaari sheytaane ñooy ñëw daal di feeñ jël melokaanu baayam ak yaayam ko ay yow sama doom toppal lim lay wax moom mii mooy sa yàlla xanaa ji fitna jéggi na dayo ku ko yonente bi sallallahu alayhi su la musiba mu mel noonu gaaree ak lu sa pas-pas dëgër dëgër mën yu bëree bëri wa min fitnatihi an yusallita ala nafsin waxida fa yaqtuluha wa yansuruha bilminchar xatta yulqa shiqayni summa yaqulu unduru ila abdi hada fa inni abcasuhu alaan summa yazcumu anna lahu rabban gayri fa yabcasuhu allahu fa yaqulu lahu alxabis man rabbuk fa yaqul rabbi allah wa anta aduwu llah anta addajjal wallahi ma kuntu baadu ashadda basiratan fiika min alyawm foofu nag daa àgg ci nattu boppam ba àgg ci nag faf lu jégg dayo ne fa muy toroxe day dajale mbooloo mu bari ne leen nag kaay leen ma won leen ndax ngeen xam ne man maay yàlla day jël benn waay rey ko jël benn riis bu mel ne bi ministre yi di yor nee na dagg ko ba mu nekk ñaari dagg mu teg benn fii teg benn fii daldi ne xool leen sama jaam bi maa ngi koy bëgg a dekkal te su ma ko dekkalee mi ngi wax ne man am naa am na moom beneen yàlla bu bokkul ak man ne su defee loolu borom bi tabaraka wa mooy daal di dekkal jaamam boobu nga xam ne moom la waa ji reyoon su ko rey ba mu taxaw ci kanam mbooloo mi dajjaal laaj ko ne ko man rabbuk kan mooy sa borom nee na mu tontu ko ne ko yàlla mooy sama borom yow mii yaay noonu bu yàlla yow yaay dajjaal giñ naa ci yàlla ne ni ma la weddee tey ak ni ma la xame tey moo gën a tar ni ma la mas weddee ci bis bu nekk kon nag foofa lay toroxee ña koy gis ñëpp dañu daal di xam ne kon kooku ku tekkiwul dara la nee na dalika rajulu arfau ummati darajatan fi ljanna waa joojee dajjaal rey mu dekki weddi ko ci kanam mbooloo mi dajjaal torox nee na kooku ci ñi gën a yëkkatiku daraja ci àjjana ëllëg ci la bokk kon loolu ay melokaani dajjaal la yoo xam ne du ay gént du ay léeb yu ñuy nettali waaye yonentub yàlla boo xam ne bu am yërmaande ci xeetam la di leen laay biir di leen jàngal fitna ju nekk ci kanam yoo xam ne ku ko gis ku nekk war ngaa préparer sa bopp war nga ko bàyyi xel ba tey bokk na wa inna min fitnatihi an ya'mura samaa am tumtira fa tumtir ne day jekki ba mu yàgg mu ne asamaan si na taw asamaan si wàcc taw nit ñi gis wa yamuru al ard an tanbuta fa tanbut suuf si saxal ñax suuf si sax ñax wa inna min fitnatihi an yamurra bil xayi fa yukadibuunahu fala tabqa lahum saaimatun dëkk woo ñu weddi ko seen jur gépp faatu jur gañ yoroon di ko sàmm gépp xëy dee kon nag maanaam borom pas-pas ci imaan faw boobu lu koy jëriñ gëm ne ngëm yàlla ci boppam day ànd ak nattu mënul ñàkk borom bi wax ne alif laam miim axasiba annaasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum laa yuftanuun da ngeen defe ne rek te ngeen di wax gëm naa rek mbir yi dem noonu te kenn du leen fitnaal loolu mënul ñàkk kon koo xam ne buñ ko fitnaalee ci alalam wala ci moomeelam wala sax ci dundam xupp ko wala yu mel noonu mu dellu gannaaw kooku day wane ni imaan ba léegi des na nekk ko fa moo tax mu ne day romb ab dëkk woo leen ñu lànk bañ ko wuy ñu xëy seenu jur dee ba jeex loolu su doon li seen pas-pas woyof ñu dellu gannaaw wa inna min fitnatihi an yamurra bil xay fa yusaddiquunahu fa yamuru alsamaa an tumtira fa tumtir wa yamuru al arda an tanbuta fa tanbut nee na bokk na ci fitnaam day romb ab dëkk woo leen ñu gëm ko mu daal di ne asamaan si tawal mu daal leen di tawal mu ne ñax mi saxal ñax mi daal di sax xata taruuxa mawaachihim min yowmihim dalika asmana maa kaanat wa azamahu wa amaddahu xawaasir wa adarahu duruuca nee na day wax ne asamaan si tawal mu taw mu ne suuf si saxal lépp ci benn bis bi ñax mi daal di sax nee na jur gi daal di for ba regg daal di duuf ba mel noo xam ne mosuñu ne mel yi ci yor soow seen soow daal di bari ci bis bi xanaa lii fitna la nee na wa innahu laa yabqa shay'un min al ardi illa wati'ahu wa dahara alayhi illa makkatahu al madina ne amul fenn ci kaw suuf fu mu dul dem moom dajjaal fenn fu ne dana fa jaar fitnaal ñooña ba mu des makka ak madina ñaari dëkk yooyu rek ñoo mujj laa yatihima min naqabin min niqaabihima illa laqiyathu almalaikatu bisuyuf nee na saa bu jegee seen suuf ñoom ñaar malaayika yi ñoo koy teeroog seeni jaas yi du agsi bu leen seenee daw nee na xata yasil yanzila bi daribi al ahmar inda munqatai sabxa fa tarjufu al madina bi ahliha talaata rajafat nee na day ñëw ba agsi ci béréb boo xam suuf su xonq moo fa ne yonent bi yàlla bi li ko yàlla di xamal ci ay yëf leer na lool day ñëw ba ci diggante boo xam ne fu sorewul ak Madina la suuf su xonq moo fa ne nee na te suuf su saf xorom la itam su agsee foofu fa la Madina di yëngatoo ñetti yoon yéefar yaag naafeq yu góor yaag yu jigéen yi yépp génn dem wuy ji ko waa ngëm yàlla muy ahlul iman ñi des ci biir Madina mu ne fa tanfay alxabasa minha kama yanfi l kiiru xabasa nee na madina dafay dàq bon bon yi nekk ci biiram comme ni nga xamee ne weñ gu xumaag boo ko dugalee ci biir weñ gi soy ko xumaag jooju noonu lay demee ba jeex nee na li bon ci biir madina noonu la ko dëkk bi di dàqe nee na wa yudaa dalika al yawm yawm xalaas bis boobu nga xam ne ci la dajjaal di woote madina dal yëngu yéefar ya génn ak naa feq ya dem wuy ji dajjaal nee na bis boobu yowmal xalaas lañ ko tudde mooy bisu bisu mucc ba xadis boobu ak ni mu guddee lépp ibnu maaja génne na ko ci sanat boo xam ne sanat xasan la kon lii lenn la ci màndargay li al imam ibnu abi jàngale foofu mu di ne yowmal qiyaam bis la boo xam ne day ñëw la shakka fiihi xamuñu kañ la waaye yonent bi alayhi salaatu wasalaam mi yàlla wax ne moom moo am yërmande ci xeet wi jox naw xeetam ay màndarga yoo xam ne benn bu ci ne day tegtale ne loolu soreetul màndarga yu ndaw yi day wax ne góor góorlu leen gaaw leen njëkkanteeg loolu ndax xamu leen kañ la balaa màndarga yu mag yi ñëw ndax màndarga yu mag yi bu ñëwee jubati dana jafe ndax am na ci yoo xam ne bu ñu xasee feeñ moom ku tuub sax diisatul nangu sa tuub lu mel ni jant bi fenke sow kon loolu ay mbir la yoo xam ne yu mat a bàyyee xel la yàlla nu borom bi tabaraka wa taala boole tawfiq musal nu ci dajjaal aku ayam ak wépp ay woo xam ne dana delloo ngëm yàlla gannaaw wala mu koy rékki wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain su amee lenn ci ay laaj ñu tontu ci insha allah ala kulli xaal ndax dajjaal mi ngi fi mu wala dundul Euh, xadis boobu ngay junj dajewuma ak moom gisuma xadis buy wane dalil boo xam ne day wane ni jëmmi dajjaal ci boppam ak melokaanam yi yonente bi alayhi salaatu wasalaam joxe mu ngi dund ci suñu jamono tey kooku moom